في المدى بالبر والمداد هلا وسهلا وترهبا للأعداد يا خير لي في الأدى بالبر والمداد auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fa yéene ànd ak yéen ci seen naafila guddik tey muy dëppook talaata juróomi fan ci weeru mai te nekk fukkeelu fan ak benn ci koor gi kon guddik tey mooy doon guddik fukkeel ga ak ñaar incha allah sering bi dafa wax ni guddik fukkeel ga ak ñaar ku ca julli fukki rakkaa raka bu ci ne nga jàng ca fatiha ak huwallahu ahad ba saar wa jeex juróom benn yoon fukki raka raka bu ci ne fatiha ak xul huwa juróom benn yoon ne loolu ku def des na ko wutal ca àjjana juróom ñetti junniy soxna te dees na ko boole ci dëkkandoo yonent bi sallallahu taala alayhi te mel na ni ku jàng tawreet injil zabuur ak furxaan te it dees na ko jéggal bàkkaaram yépp lu mu bari bari donte toll na ni duusi géej gi te dees na ko bindal tuyaabay jaamu yàlla ak juróom ñaar fukki at mel na ni it ku goreel junniy jaam te bu bis penc ba des na ko lo lu ko sop ci ñi na na dem sawara wal khiyaz billah te dana tabbi aljana te desu ko hisab kon julli ga ngok yalla nañ ko suñu borom man lo te ñu def ko te def ko ni mu ko bëgge mu nangul ñuko fulal ñuko laq ko fa yaq egul bi barakat Cheikh Al Khadim سهلا ولا تنزفا للا عدادي يا خير ذي في الآداء في البيت والمداد هلا وسهلا ولا تنزفا للا